def ku def ak sëriñ Touba ni sëriñ Touba def ak maam Thierno doo doo doo doo joteeg say bokk dëgg la wala dëgg ko sa sa sa sa bàyyi gone gi mu fi bàyyi sax nga xam ne mat nga ko bàyyi yow te yaay magam maanaam ni ko war a yore sax sëriñ Touba jàngal na la ko ci ni mu def sëñ Massamba nga xam ne gisul baayam waaye sëñ ma Massamba kenn gënu xam nga lii may wax nii lu mat a bàyyi xel la. boo amee caat tamit ne da nga ko ne caat daa war a réew dof boo xoolee sëñ Mouhamadul Mourtada xam ne yow nekkoo ci yoon sëñ Mourtada koo gis xam ne caat war nga koo def ba taaw sax du ko gën ñeewul kenn ci sëñ Tuubaa dem na ba mission bi gën a exemptante ci mbiram si loosu sëñ Mourtada da ko teg lakka alayya fiihi shukrun wa rida yaa waasi an wasaxtali bi Mourtada bu leen ko teg nag man dafa am loo xamante ni dañ ko war a bàyyi xel di xool Serigne Touba xooliinu xool nan la ñuy def xoolu Serigne Touba Touba ni mu ko ni mu ko ni aare nga xam ne di tey jii Touba am na stratégie bu sëriñ Touba def boo xam ne su ko aarewul woon noonu Touba ba tey Touba du àgg fii mu àgg du yaatu nii mu yaatu waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne. waxoon dinaay faral di wax ne addis yu bari Touba la tàmbale te gis naa ne ca sunu réew ma ñi ci bari addis yooyu sawaruñ ci te lu jege ñaar fukki addis yonent bi wax na ko muy wir yoo xam ne baatu Touba la tàmbale te baatu Touba bi mu tàmbalee dafa daf cay joxe ay mbir jublu ci tuubaa ja ca àjjana ëllëg waaye wax ne ku am melo yii mooy moom kër googu ñuy wax Touba ëllëg sëñ Tuubaa ñëw ci àdduna dawaleew ñu sunu xel sax xool addis yooyu gis ne mennam sëriñ Tuubaa moo remplir addis yooyu yëpp xolo xolo am na ci boo xam ne ñaata xasida ngeen xam yu sëñ Tuubaa bind ci jéggulu yàlla ñaata ngeen ci xam kenn xamul nu mu toll te ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon addis bu gàtt ne Tuubaa liman wajada fi saxifatihi istixfaaran kasiran nee na ki ëpp lu mu def istighfar ci aduna nga xamne def na ci lu kenn defut ci istighfar kooku moy momu toba bu ëllëgë toba li man baata xaajan wa asbaha haasiyan rajulun masturun zu iyalin mutaaffifan khani'an bil yasri min dunya yadkhulu alayhim daakixan fa yakhruju minhum daakixan fa wallazi nafsi bi yadihi innahum aazoona haajoona fi sabilillahi azza wa jalla ndax sëriñ Mor Mbaye Cissé nafa an allah bi barakaati yi dama faa dem mu ne ma maa ngi ñëw ci li ma doon wax ci famille dama bëgg rek ñu xam ne sëriñ Touba bu dul baatin bi ak yooyu stratégie bi mu ànd ci àdduna kenn mësu koo def dama bëgg ñu xam ne ci fànn yëpp sëriñ bi amul moroom waxuma ay baatin ba ñu mën léegi ñuy def lecture di xool sëriñ Touba ni mu doon defee bañ a di xool rek li ñu lim ñu lim ñu warlu ndax sëriñ Moustapha Saliou yàlla na yàlla yokk kattanam nee na li ëpp ci ñun xam nga lu ñuy xool li ñu am ci sëriñ bi rek waaye li ñu war ci sëriñ bi kenn xoolu maanaam xéew li ñu defar rek la ñuy xool nu ñu koy jariñoo sëñ Mor Mbaye Cissé dama fàmm sa dem dugg si mu jàngal ma jàngal bu yomb wan ma ne ma ndekete lii ngay gis ci àdduna yëpp nit ñi di ko doxal ñun ñu ñëw ba Canada di jàng ay gestion di jàng ay sociologie di jàng ni ñu yore suuf loolu yëpp ndeketi Serigne Touba def na ko bu yàgg xam nga kon ñun dañoo dellu ginnaaw dellu si ci ñoo xamante ni ñi lañu ñu bàyyi ci réew ma buñ ko amoon buñ ko buñ ko buñ ko tegoon fañ ko war a teg ñoom dañuy ñëw di ko jàng ci Sénégal moo tax Serigne Touba ne yaquudu lillaahu bila sheytaani manaafi al bilaadi walawtaan maanaam njariñ yi yi ñuy wuti ci dëkk yëpp Serigne Touba def na ko Sénégal xolo xolo gestion ñu bari fii jàng nañ